salaamaaleykum wa rahmatullah Touba Ca Kanam Nourou Darayni ñu ngi nuyu ñëpp te di leen siyaare bu baax a baax doon leen indil bilan financier bu mois de février bi nga xamante ni commission des finances moo koy saytu jaarale ko ci sous commission gestion des fonds euh, fi ñu koy tàmbalee mooy Touba Touba ci mois de février bi dugal na cinquante neuf millions six cent quarante mille zéro vingt quatre francs waaye duñ ci mën a ñàkk jaajëfal collecteurs yu mag yi nga xamante ni ñoo ci gën a ràññeeku ku ci mel ne soxna Bintu Mbàkke verse na ci cinq millions soxna Mbayang Jum versé na cinq millions cinq cent onze mille soxna Maam Faati Mbay versé quatre millions trois cent soixante mille Baye Serigne Lay versé trois millions trois cent soixante quinze mille camion ledd bi nga xamante ni euh, ñi ko yore muy camion numéro un bi ñaar ñoo nekk Touba benn bi dugal na deux millions deux cent cinquante quatre mille bàyyi Muudu Mbay dugal na deux millions soxna Fatou ja dugal un million trois cent cinquante mille euh, barina ñeneen ñu ci collecté waaye dañoo lim ñi ci gën a fës rek su ko defee Mbàkke dugal nañ ci njiitul Adja Dior ak soxna Mbène Mbàkke dugal nañ trois cent quatre vingt quinze mille euh, plateforme Wave bu Touba ci kanam dugal na cinq million trois cent quatre vingt dix mille cinq cent vingt sept francs bu dee Wave numéro soixante dix huit cinq cent quarante quatre trente trois trente trois bi dugal na un million cent cinquante mille plateforme bu Orange ne dugal na un million vingt huit mille cinq deux cent cinq francs euh, application bu Touba ci kanam bi virement bi dugal nañ cent soixante mille huit cent vingt quatre francs dakaar ci njiitalu bay Serigne Bousso ak El Hadj Ndaw dugal nañ cinq million deux cent quatre vingt neuf mille six cent cinquante Thiès ci njiitalu Serigne Baye Sall dugal nañ un million cinq cent onze mille département Dagana ci njiitalu Serigne Aliou Nying dugal nañ deux cent soixante-dix-sept mille Diourbel ci njiitul soxna Ndey Njaay Manel dugal nañ neuf cent vingt-trois mille Bambey ci njiitul Serigne Abdou Fall dugal nañ soixante mille Joal ci njiitul Serigne Bassirou Diaw dugal nañ quatre cent vingt-cinq mille Kaolack ci njiitul Serigne Moustapha Touré dugal nañ un million six cent trois mille Goudiri ci njiitul Serigne Damba dugal nañ un million cinquante mille Kébémer ci njiitul Serigne Góor Silla dugal nañ un million quatre-vingt-six mille Kédougou ci njiitul sëriñ Modou Lo dugal nañ quatre cent quatre vingt mille cinq cent Louga ci njiitul sëriñ Moustapha Bassirou Mbuub dugal nañ deux millions huit cent quatre vingt six mille cent vingt quatre Mbour ci njiitul sëriñ Mor Sourang dugal nañ un million quatre cent vingt mille Bakkan Laman ci njiitul Soxna Njaba Njaay dugal nañ cinquante mille Tamba ci njiitul sëriñ Adama Niass dugal nañ deux cent quatre vingt neuf mille Modéri ci njiitul sëriñ Bassirou dugal nañ cinquante mille Ndiawara ci njiitul sëriñ Cheikh Anne dugal nañ cent mille versement anonyme mooy versement yi nga xamante ni ñu koy dugal duñ leen xam dañuy dem directement ci compte Touba ci kanam yi liñ ci dugal toll na ci un million sept cent seize mille trois cent Fouta Bokkilaa ji Serigne Mouhamadou Fadal ja dugal na cent vingt trois mille ci waawoon ci njiitul Serigne Mamadou Diop dugal nañ cent soixante cinq mille Daaru Salaam Diouf ci njiitul Serigne Youssou Thioune dugal nañ neuf cent mille Mboro ci njiitul Serigne Moustapha Diouf dugal nañ deux cent cinquante mille Kaba ci njiitul Babacar fay ji dugal nañ sept cent quinze mille jifeer ci njiitul sëriñ Ousmane Ndiaye dugal nañ cinq cent mille loolu mooy li dugg ci compte tubaat ci kanam yi ci ci zone nationale bi loolu mooy ci biir réew mi buñ ko xaymaa mu toll ci quatre-vingt-neuf million six cent trente-quatre mille cent cinquante-quatre francs su ko defee am na karo yu Touba ci kanam jëndoon euh, biñ ko jëndee ba fay ko ba pare euh, fournisseur bi ñu ko jaayoon daf cee barkeeluwaat ci njëg gi luy tollu deux millions cinq cent ñu dugalaat ci compte yi Euh, dañuy dem bitim réew euh, dañuy njëkkee zone Amérique muy continent Amérique États-Unis moo ci dugal huit millions deux cent soixante cinq mille ci njiitalu Serigne Souhaïbou Seck su ko defee ñu dem Europe coordination bu Italie dugal nañ deux million cinq cent trente quatre mille trois cent vingt bu France dugal deux cent dix mille Espagne ci njiitul Serigne Malick Dieng dugal nañ cinq cent dix sept mille six cent trente cinq francs su ko defee li jóge Europe yëpp suñu ko boolee ci ñetti dëkk yooyu day tolloog trois millions deux cent soixante et un mille neuf cent cinquante cinq ñu dem ci continent bu Afrique Gabon lañ ciy jiital ci njiitul Serigne Xaasim Sarr dugal nañ trois cent trente cinq mille Côte d'Ivoire ci njiitul seriñ Mor Fassa dugal nañ six cent cinquante mille Afrique du Sud ci njiitul Serigne Mor Dieng dugal nañ quatre cent mille sept cent cinquante Tchad ci njiitul Serigne Mori Silla dugal nañ deux cent quinze mille. Guinée Bissau ci njiital sëriñ mu Atta Seck dugal nañ cinq cent deux mille euh, buñ boolee loolu yëpp li jógee ci Afrique day tolloog deux millions cent cinq mille sept cent cinquante deux millions cent cinq mille sept cent cinquante suñu boolee lépp muy li jugee ci Sénégal ak bitim réew continent bu Amérique continent bu Europe continent bu Afrique li dugg ci keesu Touba kanam ci mois de février day tolloog cent cinq million sept cent soixante six mille huit cent cinquante neuf francs kon ñu indi leen li nga xamante ni moo génn jëm ci liggéey bi misrak mi bi jaayi xayri manabaat wajalilaayi maskanitu bu ko defee li ci jot a génn euh, barabu fajukaay bi Touba ci kanam di tabax ca Aliya liñ ci def ci mois de février bi toll na ci huit millions cinq cent vingt six mille trois cent cinquante sànc bi Touba ci kanam di tabax nga xam ne mooy siège ba moom liñ ci li ci génn toll na ci neuf million sept cent trois mille sept cent opération defar yoon yi yoon yi nga xamante ni day am ay yàqu-yàqu ñu koy defaraat fu ci mel ne sexaw ga ak euh, liggéey yi ñu doon def ci biir kër sëñ Touba gi ci Daaru Mannaan ak yu ni mel liñ ci génne ci mois de février bi toll na ci dix millions quatre cent huit mille quatre cent cinquante am na montant bu ñu fi doon bàyyi euh, jagleel ko commission réalisation mu toll ci cinq millions ci yenn dépense yi nga xamante ni xëy na euh, day xaw a urgent makkaan mi Touba kanam di tabax gede muy barabu fajukaay ba li ci génn ci mois de février toll na ci quatre millions vingt deux mille bu dee barabu fajukaay bi nekk ci Madiana 6 li ci génn ci mois de février toll na ci deux trois millions deux cent quatre-vingt-treize mille commission environnement euh, nga xam ne ñi yore wàllu cet gi ci la ci la nekk ci biir muy commu muy sous commission nettoiement am na ay tenues yu ñu doon jagleel ñiy bale li ci dépensé toll na ci mois de février millions cent vingt-neuf mille cent quatre-vingts francs commission communication wàllu yaatal gi lu jëm ci rajo yi ak télé yi ak site internet yi mois de février bi def nañ ci huit millions six cent soixante sept mille commission scientifique et culturelle euh, def nañ ci ci mois de février bi trois million six cent quatre vingt six mille neuf cent cinquante commission logistique nga xam ne moo yore euh, lu jëm ci oto yi Touba Kanam yi réparation yeeg lu jëm ci carburant bi liñ ci def ci mois de février toll na ci dix huit millions treize mille cinq cent soixante quinze. commission éclairage public mooy leeral liñ ci def ci mois de février toll na ci quatre cent soixante quinze mille. commission massification wàllu yaatal gi euh, liñ ci def toll na ci deux cent mille. am na trois millions yu ñu génne woon pour yenn dépenses yu urgent yi ci mois de février bi. su ko defee. lu jëm ci salaire yi ak charge fixe yi tubaa ci kanam yi ci mois de février bi génne nañ ci quinze millions trois cent trente et un mille barabu fajukaay ba nekk ca Touba Sam Touba ci kanam lim ci def ci mois de février bi toll na ci quatre millions six cent trois mille sept cent sous commission membre ci biir finance bloc de reçu yi nga xamante ni moom la ñuy jëfandikoo liñ ci def ci mois de février bi toll na ci million millions cent vingt cinq mille commission relation extérieure mooy diaspora liñ ci def ci mois de février bi toll na ci un million cinq cent quatre-vingt-sept mille trois cent cinquante bu dee commission administrative lu jëm ci matériel de bureau yeeg yu ni mel liñ ci def toll na ci un million sept cent soixante-trois mille frais bancaires yi nga xamante ni mi ngi génn ci compte yi li ci génn ci mois de février toll na ci quatre-vingt-six mille cent soixante-quatre suñu boolee li génn ci mois de février ci ci ci kanam yi et un

suñ ci génnee li nga xamante ni moo génn ci mois de février bi toll ci cent quatre millions neuf cent vingt et un mille cinq cent vingt kon dañuy jàpp ci keesu Touba Kanam yi li ci nekk ci mois ci fin wu mois de février mi ngi toll ci trois cent quatre vingt dix millions cent huit mille trois cent cinquante trois francs ñuy jaajëfal mbooleem collecteur bu tubaaj Kanam ak mbooleem taalibe yi ci participer di ci woo ñëpp ñu participer ci ndax euh, liggéeyal dëkk bi rek moo ko tax a jug di ñaanal kilifa yëpp di ñaanal suñu mu taxaa mu yàgg fi te Touba ca kanam mi ngi fàttale jullit ñépp rawatina taalibé yi Serigne Touba yi ñu gën a farlu ci dëkkub Serigne Touba bi gën a taxaw temm ci saafara jafe-jafe yi dëkk bi ndax lu mën a nekk la lu gox sori sori lu mu ruqi-ruqe lu mu jege-jege si biir Touba Touba ca kanam mi ngi koy bàyyi xel te am yéene saafara seeni jafe-jafe ci kaw nag ñu gën a farlu bu baax ci ñaari téeméer yi di ko soñña ci biir kër yi ci quartier yi ci marché yi ci charrette yi ak oto yi ci mbootaay yi ci daayira yi ci jumaa yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew bu wér ci dagg reçu 1000 francs yi wala ci 12000 francs yi ku ko mën sax nag nga di si boole carte membre bi. képp ku bëgg a yónnee sa adiya ci Touba ca kanam mën nga télécharger application Touba ca kanam ci Play wala Apple Store am na Wave am na Orange Money sax sa carte bancaire ak foo mën a nekk ci àdduna bi boo bëggee itam mën nga ko jaaralee ci numéro bi 78 544 33 33 am na Wave. Orange lépp ngir tuubaa gën a jëm ca kanam di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool